waaleykum salaam. a ce que xam nga ne sama xarit nga mais dañuy mais man a yow duñu waxtaan lu bëri quoi seetlu woo loolu. waaw waaw loolu dëgg la lan moo tax loolu. xëy man bëgguma la sonal quoi. billaay waaw dëgg la waaw yow moom dafoo comme gars yi def yi. <laughs> man moom bëgguma la fàtte wax dëgg yàlla. Euh, naka ngeen jàngatee combat bi delloo ngeen ko bàyyi ngeen ko. combat ba. Modou Lo Ama Baldé. non loolu CNG ñu ko de CNG moo libéré pour ñu wut beneen combat. après ba ba wér ndax mu ne fa feebar ba heure wéree ñu doog a dama dama defe ne woon combat boobu dootul amat. Ah, dina am de fekk ah ah si promoteur promoteur bi njëkk ne combat dootul amat waaw ñun de sax ñu ngi préparé rek. waxtaan ngeen seeg moom wax moom ndax ñun CNG moo ñu tënk comme avance ñu ne CNG CNG jo bindal nañu ne mun mun nga wër combat waaw ah, dañuy wër combat rek waaw. d'accord nañu foofu CNG moo leen tënk kayit yi fa ngeen ko signé woon date bi jot na. nee na leen mën ngeen jël beneen avance beneen combat ngeen bëri ko mais est-ce que si promoteur yéen ñaar waxtaan ngeen ci combat boobu ak ban anam ngeen war a demee. non promoteur bi mu waxtaan ndax man promoteur ba combat bi yàqoo te ma woo téléphone ne ma combat bi cat dugg na si waaye nag combat xam ne li si laxasu moom moo tax moo tax waxtaan du si mën a li si laxasoo bëri. lan moo si laxasu. Ah, rek. bëri na de. so